avancé bu baax a baax dem ci li nga xam moom mooy wàllum wàllum développement mais du ñàkk aussi ñu wax ci résultats yi nga xam ne gis nañ ko mu nekk résultat provisoire ndax mbetteel na ci am waaye tamit euh, ñi nga xam ni en tout cas système bi ñu xoolee defee parrainage est-ce que duñ ko xoolaat ndax ñi nga xam ne zéro et quelque zéro virgule nangam pour cent bari ci loolu ci candidat yi. mais loolu lépp joxe exemple mooy xalifa euh, di politique ndax sa bopp xam nga politique nax sa bopp mm-hmm. mooy. Euh, taxawal sa benn parti am ñetti mouvement yu la dimbali nga naan coalition. Uh-huh. baatu coalition wax wax wax naa leen ko fi baatu coalition la gars yi di sàggane coalition Moussa Thiam da ngay am sa parti bu am base am sulëf Khalifa Fall am partem Abou Sall am partem Nar Fall am partem ñu ni gars yi kaay leen toog réunion ñu waxtaan uh-huh. ah yow kat sa parti moom élection yi passé pourcentage bi la amoon yow sa bos bii la amoon xëy de kon maa la ëpp la tuuti yow mosoo bokk la ci élection mais yooyu yëpp amul solo nañ jël intérêt personnel yi teg ko jël intérêt commun léegi coalition bi ñuy taxawal dañu am benn objectif. dañuy dem élection locale wala ñu dem élection législative nañ ko tudd coalition AAA par exemple wala ABC. ok ñu juboo ci ay kàddu ñu am benn coalition boo xam ne loxo yàlla daf ci dugg tudd coalition Yewwi Askan bi jamono jooju nag sénégalais yi doyal nañu ci nguuru Macky Sall benn doyal bo xamni parce que dañu génn ci Covid 19 ñu persécuté ñu. nangu suñu xaalis té ñoo tukki ak yenen ak yenen ñak gi gën yokku sénégalais Sénégal yi gën a souffrir. coalition yooyu askan wi juddu daal di am doolé ñi ci bokk ñepp fogg ni am nañ doolé saa da ngay nek ñittal mouvement bokk coalition yooyu askan wi ñu def la tête de liste sa dëkk nga gagné mairie ba sa parti dee ba sëngéem sa parti bokku ci coalition Yewwi Askan Wi nga gagné fa nga nek foog ni yow la nit ñi bëgg am ci ño xamni ci coalition lañu téggé ay deal pour valaa balal sen qualification ci présidentielle yi mu commencé am ay trahison am ay traître yu commencé tay la coalition bi pour ñom mëna a bokk ëllëg ci yeneen élection wala man ci am dara mhm. am ci lu sen am luñ ci xam kilifa yi teg ci seen tànk ba noppi nag li seen noonu ñu ni seeni booy xam naa ne du ñàkk mu dugg ci ay nopp waaye bu ko fi kenn waxee ku wax saaga leen man dama bokk ci ñu foroon la seen noonu ma ni leen dina am ay war ci biir coalition Yewwi Askan Wi ñu may saaga atum lëmm ñu indiwaat coalition intercoalition intercoalition mën leen du dëgg ay naxaate la ñooñu dima saagawaat atum lëmm

ñu ngi jaaxaan di ndox moo tax am na ñoo xam ne boolewuñ leen sax ci pourcentage bi ñuy def décompte bi waaye Moussa am na ñoo xam wóor na leen nii xam eh, est-ce que xam ne électorat bi dafa yokku yegg na 4 millions et quelque donc ñu ñu voté mmh. ah loolu moo lay permettre nga comprendre li ma la doon wax naan la ñi moom carte carte d'identité yi nekk ci sous-préfecture yi nañu ko utali borom boy yi voté di indi changement jël nañu seen carte bu yàgg daas fanaanal uh-huh. électorat bi dafa yokk diggante législative ak léegi bu baax dafa yokk bu baax te yow bu doon ay élection locale la wóor na ni gañewoo sax benn maire yi te nga jóge ci ay élection présidentielle te nga xam ne bu fekkoontoon ni élection locale la doo gañe sax benn maire yi kon xam nga ni amoo doole kon xam nga ni coalition Yewwi Askan Wi moo la yóbbaale woon. Barthélémy Dias dañ ko gagné bureau hmm. ci présidentiel yi. Bamba Fall dañ ko gagné bureau ci présidentiel yi. Amadou Ba dañu ko gagné bureau ci présidentiel yi. bëggoon naa itam aussi vérifier yeneen candidats yi ci des kenn ku ne ban bureau de vote parce que am na candidat yoo xam ne siiwaluñu seen siiwaluñu seen bureau de vote te waroon am ñoom ñu bëgg média bu ñu assuré woon ni ñooy gagné seen bureau de vote bu ñu xëyee di voter ji daañu firndalu seen bopp yónnee ko euh, ci média yi. pour bañ ñu xool seen bureau de vote ndax ñoo ko gagné perte. mais xam nañ dañoo perte. Mhm. léegi nag maa ngi dégg sama mag gi sax ndeysaan euh, Mamadou Sy Albert. jàngat euh, tolluwaayu Idrissa Seck ak PUR li tax ñu xaw a euh, delluwaat ci muy gis-gis bu ma rafetlu mais xaw ci ñàkk tuuti ànd ak moom mm-hmm. waaw ma ñàkk ànd ak moom ci ni ñu ni ñuy interpréter mm-hmm. euh, wàcc gi am ci parti bu Idrissa Seck parce que boo ko jàngatee ci élection yi la passé mm-hmm. calcul bi dafay faussé parce que élection yi passé quatre candidats là on quatre ak ak ak ki remplacé opposition bi quatre ñoo ci nekkoon. ak Macky Sall mi ñuy jàkkaar lool. Macky Sall mi mi mi boule Abdallah annoncé woon ay résultats am laataa ñuy egg ci élection yi. donc Idrissa Seck mu élection présidentielle 2019 ak ak du bi Sénégal amoon mënta bokk même njàngat ci le résultat ak Idriss Seck élection présidentielle 2024. Mm. électorat bi changé na fi. Euh, contexte yi duñu ben benn nombre candidats yi duñu ben 5 candidats ak 19 candidats wala 20 candidats duñu ben bu kenn ku nek jëlé sax donte woon ni dix ngay jël ci électorat bu Sénégal. donc xeyna euh mën nañ ko bañ jangaté nonu ci digënté Idrissa Seck ak pure mais li ci mëna gis man li ci mëna a moy mooy fokk ñu gëm coalition de façon naturelle. Mhm. xam nga dañuy dem élection législative wala dañuy dem élection élection locale. Mmh dañuy taxawal benn coalition bu ñu eggee ba ci élection présidentielle ku nekk dem sa yoonu bopp ku nekk dem sa yoonu bopp bu ñu noppee daje deuxième tour loolu àndub naxante la parce que ci ñi nga xam ni nee nañu waaw ni ok wóor na leen ni du am ñett ci élection présidentielle yi honnêteté ak sincérité ci wàllu ànd ci wàllu politique mooy ma xam ni fii nga may woo mun ma faa dem ma ni bàyyil ma jiital la topp ci sa ginnaaw mais bu fekkee da ngaa jóg dem fekk Khalifa Fall am benn association nga dugal ko ci sa coalition euh, Khadija Diatta am benn ndaje mbootaayu jigéen mouvement des femmes. Mhm. nga ñëw dugal ko ci sa biir coalition. après ni waa Sénégal am naa coalition MMD alors coalition benn association ak benn mouvement la. bu le journaliste bi coalition il ko une coalition mouvement des femmes indi présente association des jeunes après pour mën diffamer journaliste bi mais le journaliste a raison a une coalition coalition. Il bari nañu dem ci candidat yi a dem ci élection yi a une coalition. y a une coalition. dañu am ñetti nit. coalition. Il y a ñetti nit jeudi. amuñu ñetti une coalition. wuy ma yow kay coalition. Il y a wuy ma a une élection locale nous une coalition. Il dem dinañ ko ñeme. ne ku nekk dem ak liste boppam bu ñu ñemee affaire bi Pastef moo leen ëpp doole dafa am ay raisons yu tax. benn bi mooy à part Idrissa Seck seul Ousmane Sonko moo mus a dem ci élection présidentielle ci ñi demoon ren benn. Mhm. à part Idrissa Seck ci wàllu politique. seul Ousmane Sonko moo affronté nguur bu dugg ci kaso ak ñépp ñu mu bokkal parti li mu ci nekk victime kenn nekk ko ci victime mais du loolu avant loolu dafa afronte sénégalais yi ci présente leen moom ni muy jiitee bind benn téere ni leen ëllëg bu ma faloo bu ma defee lu bokkut ak li nekk ci këyit bi nii man la xanaa xamuma Macky Sall li mu bind ci téere bu doxalee woon noonu sénégalais yi duñ ko jéppi nekk ci li bind ci Sénégal émergent bu ko jëfandikoo non, au Sénégal du leen kon kenn du leen folli non non kon kenn du leen folli ni ko bind ci këyit dañ koo par contre Ousmane Sonko noonu la ko jëfandikoo beneen bi ci des Sénégalais dañ dem ba ci sàcc mu ngi leen sàcc. Mhm. ñu vérifier xool xool ñi mu vérifier confirmer ni musta ndax jaar

Euh, ba tey mun naa continuer dund parce que am na ba léegi ñu koy incarné mais euh, ñàkk wante ak ñàkk nangu dogal yàlla moo leen wan néew doole gi ñu néew doole ñoom parti yi nekk ci coalition bi te kaay ma wax la de Pastef day gën a am doole de mhm. ah, waaw waaw waaw Benno Bokk Yaakaar dee benn hmm. bokk yaakaar hmm. ah si bu Macky Sall joxee lenge ñu suul ko jàppal ko datu salax ma cap 21 ya ba ñooyam dootul dekki c'est fini léegi xam nga lu ñuy def kenn ku ne il faut uti sa mouvement bob bu ko defee PS gën tas ay nit mënoo ñu mënoo ñoo jéeg jéeg génnaat ñu nekkoon PS <laughs> xam nga euh, créer seen mouvement wala seen parti wala nangam nangam ñeneen génn APR déjà am na ñuy demander exclusion Macky Sall xam nga loolu waxi caaxaan. Mhm. APR ay laafam gën a tooy durée de vie 12 ans la c'est fini 12 plus 3 yi non 2 yu campagne muy 14 ans jeex na moy durée de vie après PDS dañu doon na Ablaye Wade opposant depuis 1974. depuis 74 26 ans d'opposition. Mhm. d'accord mais il y ñaari une opposition la fukki at ak ñaari pouvoir D'accord na Pastef que ñu ngi leen un peu doole moy xawma durée de vie bi de parce que tout ci tout dépend ci li ñuy def mm-hmm. mais li leen naxa gëna ëpp doole mooy a Sénégal yi ci Pastef la ñu ëpp yaakaar sax APR ci ñu ëppoon yaakaar mm-hmm. donc mun nañu taxawal këf ku dëgër benn dëgër euh, dégager fi idéologie complètement mais indi patriotisme loolu moy comme les am Chine. dem ba chaque citoyen yëg ni moom il est le président té loolu lañ koy contaminé ci deret Ça dit, à xam nga sénégalais bi Baye Moussa bu génné toj station bu génné toj bus parce que yëgagul ni mom il est le président dafa japp ni dañ ko exclure ci réewam xañ ko ay droit ba mom limu japp ni deureum dugg na ci fu mu ko jekkoo da koy toj toj sa alal ku toj sa alal nite woo. déedéet. ku toj sa alal amoo li la gënal. mais yenn say mu nek méthode de xex ma jox la ben exemple man ci la ko jàngi ci Bougane dañu amone problème ak ben imam xawma dal tribune mo amone problème ak kenn tribunal dan tribune ñu wara ñew saisir ay bagages yu tribune gendarmerie bi ñuy ànd ak UC bi début bi dañu ñëw def seen yëfu maa sérieusement parce que dañu ñëw fekk ñu def Zik FM entité Zik FM numéro d' exploitation tatan tatan seen TV numéro tatan tatan Tribune noonu Dakar ak kii waaw Actinet noonu mais bi ñu ñëwee vigile bi ñu leen waaw fii Zik FM la Tribune la ñu amal affaire. Mhm. ñu yéegaat vigile bi ñu leen fii Sen TV la ñu yéegaat vigile bi ñu leen fii mooy Tribune ñu dugg xool gis fa ñetti ordinateur xaw ma ñaar huissier bi ni non non dañu déplacer bagage alors boobu huissier bi mu ngi dugg ci lu dul domaine am parce que xamul ni benn benn ordinateur donc mën na mën na yor journal quotidien benn benn ordinateur mën na doxal télévision parce que foofu la technologie toll. Mhm. léegi huissier bi non non non da ngeen déplacé bagage commencé indi ay affaire après ni gendarmerie wàccaat Zik FM fekk Ahmed li revue de presse mu euh, débrancher les machines. Mhm. Ah mais non débranche de machine après j'en avais eu, bëgg de après vous n'y une ma essence parce que rasulillahi ma immeuble bi gars yi indi essence y a damay immeuble immeuble maa Zik FM dama koy Il y dama koy matériel gis y tribune la fa Il y a parce que vous ne maîtrisez rien. Mm-hmm. est-ce que xam nga y quotidien te y am ordinateur. Baye Moussa mën nga am quotidien té do am sax ordinateur. Mhm. mais comme do nañ ko bëgg a jaay doole mhm. ni damay taal kër gi. dem outil essence am pour taal ko la mais bo xam ci mom dong li ci ci la ni man pourquoi boy di mhm. parce que nous avons ci et ñu ko seen droit ay di ci

bu ñu fekkente ni bi xam nañu ni lii ñoom ñoo ko moom. ñoo moom stan station yi. ñoo moom bus yi. ñoo moom école yi. ñoo moom édifice public yi. billaahi kenn dootul toj kenn dootul taal. parce que dañuy yëg ni boole nañu leen ci. mais bu ñu leen ci boolewul bàyyi dañuy toj dañuy taal. parce que boolewuñu leen ci woon. damle méthode bii nga xam ni moom la Sénégal yi gis ci wàllu politique muy patriotisme. bu ñu demee ba ku nekk yëg ñëw yaay président toj dootul am yàq dootul am bañante dootul am